donc dafa am crise d'asthme ci biir prison bi à tout moment Ousmane Sonko mën na dee ci prison bi dañ ko jàllale te ñu intensifier xeex bi na xeex bi gën a yokk Sénégal jóg leen da ngeen di toog ba xaar ba gis Ousmane Sonko dee ngeen di soog a jóg di ñaxtu fekk c'est trop tard bala mu dee Macky Sall di ko rey jóg leen ngeen xeex li ma leen di wax c'est une information qui vient d'être qui qui vient de m'être donnée par des agents yo xamné ñi ñu ngi ci biir prison bi diko garder té ñoñu Ousmane Sonko lañu andal parce que ñepp mom lañ bëgg ñepp mom la andal té ñom mënuñu wax information bu sensible la leen wax bo xamné ñi ni ngi soog a ñëw ñu jox mako ko leen Sénégal ngeen xeex ñu génné Ousmane Sonko fi mu nekk Macky Sall daf ko bëgg ray fi toll mi ngi piqué ay crise d'asthme ci biir prison yi mëntul noyé, mi ngi fat te dafa tok ñaar ñetti fan lekkul grève de la faim sénégalais yi Ousmane Sonko yéen a dénk seen bopp leen ngeen génn ñu xeex génn fi Macky Sall génne Ousmane Sonko Sénégal am jamm lii nag information bu sensible la boo xam ne urgence laaj Sénégal gépp génn ñu toj taal fépp Macky Sall abal ñu général le combat continue salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi encore général information yi ma jot ci Ousmane Sonko dafa nekk di crise d'asthme il est un peu asthmatique dafa nekk di crise asmam bi dafa yéeg donc dafa am crise d'asthme ci biir prison bi à tout moment Ousmane Sonko mën na dee ci prison bi dañ ko jàllale te ñu intensifier xeex bi na xeex bi gën a yokk Sénégal jóg leen da ngeen di toog ba xaar ba gis Ousmane Sonko dee ngeen di soog a jóg di ñaxtu fekk c'est trop tard bala mu dee Macky Sall di ko rey jóg leen ngeen xeex li ma leen di wax c'est une information qui vient d'être qui qui vient de m'être donné par des agents yo xamné ñi ngi ci biir prison bi diko ko garder te ñooñu Ousmane Sonko lañu andal parce que ñepp mom lañu bëgg ñepp mom lañu andal té ñom ñoom mënuñu wax information bu sensible la leen di wax bo xamné ñi ni ngi soog a ñëw ñu jox mako ko leen Sénégal ngeen xeex ñu génné Ousmane Sonko fi mu nekk Macky Sall daf ko bëgg ray rey fi mu toll mi ngi piqué ay crise d'asthme ci biir prison yi mëntul nooyi mi ngi fat te dafa tok ñaar ñetti fan lekkul grève de la faim sénégalais yi Ousmane Sonko yéen a sen bop bopp leen ngeen génn ñu xeex jële fi Macky Sall génne Ousmane Sonko Sénégal am jàmm lii nag information bu sensible la boo xam ne urgence laaj na ko ñëpp partagé te Sénégal gépp génn ñu toj taal fépp Macky Sall abal ñu. Akhenaton seen général le continue